Mm-hmm. donc euh, fas yéene moon jël kàddu sax parce que wax dëgg yàlla wax nañu lépp euh, peut-être soo amee message bi may jàllale message bi may jàllale suñu kilifa diine yi kilifa diine yi pour yëgloo leen ni am nañu nguur gi nga xam ne bàyyiwu leen xel am nañu nguur gi nga xam ne mu ngi nas ak di nocci ci wàllu agenda LGBT bu nekk ci àdduna bi euh, Macky Sall ak équipe boobu ñu ngi nas li nga xam ne bu ko waa Sénégal xamoon wallahi asim ñëpp ay jug dem pale fekk ko fa génnee ko ba tey rey ko du yem ci génn kese dañ koy rey Macky Sall inscrire na Sénégal ci benn agenda bi nga xam ne ñu ngi lewal ak di layal lépp li nga xam ne ay droit LGBT dans le monde entier maa ngi koy wax yàggul ci weer wi ñu weesu muy février président Biden dafa falu euh, génnewaat benn projet wu Obama bu 2011 mu wax ne États-Unis na commencé durcir ay sanctions ci bépp dëkk bi nga xam ne yéwénalul wala yombalalul lépp luy droit LGBTI dans le monde euh, loolu projet Obama loolu depuis 2011. mu texte nag ne ni dina sanctionner financièrement bépp dëkk bi nga xam ne dañuy buntu xatal ak di fitnaal guddi gi seen biir dëkk. lii la Biden wax ba mu njëkkee yeeg pouvoir loolu bettuñu Biden équipe am sax nommé na transgenre nommé na ay góor jigéen euh, moom euh, il est acquis à la cause LGBT avant mu yëg au pouvoir ba mu waxee loolu nag wax sanction financière yi wax restriction visa yi.

Mais wax ni PGA c'est une union internationale des parlementaires pour yonal journal Sénégal gi yoni na fa 3 wala 5 ndawam yoo xam ne ñoo Sénégal à notre insu ils sont 1350 députés dans le monde entier yoo xam ñu ngi leen di ci comment préparer des lois qui sont qui sont qui sont douces des lois qui sont presque incomprises pour diko distiller dans l'appareil judiciaire de ces pays là pour waajal avènement góor ci Aujourd'hui, bi aujourd'hui lobby international ànd ak ay milliards yu bëree bëri fas yéene forcé ko dëkk yëpp yi nga xam ne dañ koy bañ ñun Sénégal Macky Sall sàcc na mook mook ay rakkam suñu pétrole méttiwuñu ndax xam nañ ni nañ ko nañ ko dabu ji ndax bu dee am nañu ay puits yi nga xam ne puits yu illimité la xam nañu buñ ci sàccee pendant 3 4 5 ans wàññiwul Sénégal Macky Sall sàcc na zircon sàcc na pétrole euh, joxe na ay licences yoo xam ne xam nañu mën ko annulé ndax géej googu du ñoo ko moom oh. waaye nag su sekkee ni suñu ay valeur suñu diine la Macky Sall instant yi nekk di yàq lii mëntuñ ko dabuwaat lii Macky Sall mu ngi koy waajal depuis ba mu ñëwee au pouvoir barki démb maa ngi koy fàttali ne ba mu ñëwee 2013 premier EPU EPU mooy examen périodique universel bi nga xam ne Nations Unies daf koy chaque année di convoqué dëkk yëpp leen laaj fan ngeen toll ci góor jigéen yéen ñëpp ngeen ko consulté en ligne Sénégal saa yu demee dafay wéral que ñun sonlu ñu góor jigéen ñi amul benn loi te di dimbali Macky Sall saa yu demee bitim réew bu ñu ko laaj si góor jigéen ni góor jigéen ñi bu len nexé manifester bu len nexé def lu leen neex ñun gouvernement bi la def dara mom léral ni gouvernement bi il n'a pas de problème avec les avec les góor jigéen moom le peuple la bayé opinion sociale léegi nag le peuple mom xawma ma si dara waaye ñun état bi mu def dara ñun donc Macky Sall inscrit le Sénégal ci ben agenda bi xam agenda bu satanique la agenda góor jigéen bu mak la bi xamné euh ne code de la presse barkati dem bu ñuy tudd ñu ci siy orientation sexuelle. ànd nañ fi genre dugal ko ci mbolé ministère ba defal ko sax ministère du genre ba sénégalais wax waxtaan si change de permis de conduire changer sexe de ko genre defar na fi constitution bind fi nouveau droit ba pare interpréter wu kenn de ou def na fi plan ben plan national bi xamé pour l'équité et le genre di wax waxu société sans discrimination d'ici 2026 taxaw nak président Obama né ko Sénégal pareegul wax ko du ma sa dafa il n'est pas encore prêt ñu war xam nak kon quelles sont les stratégies que le Sénégal est en train de mettre en œuvre aujourd'hui pour préparer une société sans discrimination où les LGBTI auront libre droit de se marier et de vaquer à leurs occupations comme dans tous les pays du monde aujourd'hui li moy suñu problème bu gëna a ngand bi nga li ne lii haute trahison ci walu ndono mag ñi ci walu diine ci wàllu suñu valeur yi nga Macky Sall daf ñuko def te du ko bal abadan dama né sëriñ yëpp nak suñu comprendre li xew té nak wax dëgg Yalla njox nañ ñu koy wajal. ndax wër gi ñu génn am nañ jambar gu mag Sénégal bi xam Sénégal yëpp ko amee njukkal mu tudd Ababacar Mboup dox nañu ci benn àndandoo bi xam ne ñu tudd ànd sàmm jikko yi sëñ Fallou mii kenn si ñoom di def liggéey bu mucc ay ci wàllu googu dem nañ seeti mboolee mi xalif généraux Sénégal yi mboolee mi imam bi yi nekk ci biir Sénégal bi yëpp pour wan leen ni Sénégal nekkee di dox ci wàllu góor jigéen ñu am nag bëgg-bëgg ci benn loi buy criminaliser homosexualité au Sénégal ndax loolu kese koy faj instant mbay wax ak yéen la ligue LGBT du Sénégal mu ngi préparé benn atelier atelier bi pour amender l'alinéa 3 de l'article 319 du code pénal Nous, nous dañ ko bind ñu koy taf ne il faut ñu dindi article parce que article il est discriminatoire euh, acte contre nature Nous, ñoom le la vise ñoom ne am droit dund Le Sénégal a signé ay ay ay ay traité yi ne wax ne kenn du orientation sexuelle sur ci appartenance politique sur ci religion sur ci race am ak ci ethnie am li a Sénégal moo ko signé waaye nag dañuy fàttali Macky Sall di fàttali ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooñu Sénégal réew la bi nga xam ne réewu diine la réew ñi ko sos samp ko diine moo ñu moo ñu moo ñu boole te yu diine dafa bañ góor jigéen islam bëggul góor jigéen christianisme ko góor jigéen suñu ay aada bëggul góor jigéen maanaam ñun homosexualité du suñu tradition de suñu histoire de suñu culture te bokkul suñu religion dama né fi ba àdduna tukki la duñu ñu nangu góor jigéen am Sénégal té trahison bi nak moy trahison bu gëna a mag bi xamé mënuñu ko baal ñun Macky Sall ci dox bu muy dox ci góor jigéen yi ci dox bu muy dox ci yéewanal góor jigéen yi moom ci am fàttali naa ne campagne am sax ay góor jigéen ñoko ko ñoo ko financé ministre mi di wax waxu force occulte ak waxu terroriste mm-hmm. les vraies forces occultes sont avec Macky Sall ces forces occultes là sont des homosexuels yoo xamé ne dañoo dañoo financé campagne Macky Sall dañoo ànd ak moom ci biir réew mi ba obligé ko mu nommé ay ministres yoo xam ne ministre góor jigéen lañu ñëpp xam Macky Sall gouvernement bi mooy gouvernement bu gën a catastrophique ci histoire Sénégal lopp genn wàll ministre ay góor jigéen lañu c' est des homosexuels waxuma waxu ils sont pro c' est des homosexuels Macky Sall ci moom c' est des homosexuels ñoo ko tabb ñoo ko dimbali ñoo ko financé ak seen alal bu bëree bëri nag bu tax si waxu nemmeeku tour yéen opposants yi waxu ñeneen ni na wax moom ñoom Bertrand Delanoë bu ñëw déplacé ñëw fii Sénégal di góor jigéen góor bu Paris la marié carrément ak dem Afrique du Sud pour marié bien avant la loi de mariage pour tous en 2013 qui dafa déplacer wu leppam campagne Macky Sall Macky candidat Macky ñoo ay yi ne mënu wax may wax décoré ci ordre euh, du chevalier ordre du lion bi Sénégal en décembre ba pare def ko ci 10 décembre nga xamné moy mooy journée droit de l'homme bi xamné ñam dañ koy xexé instant yi Bertrand de la Macky Sall njëkk njëkk tàpp et loolu ça veut tout dire 10 euh, décembre bobu aujourd'hui la loi lu wax les droits droits de l'homme mo ngi am ben ben vision bu bess bu mu am ndax dans les droits de l'homme dafa am ben dimension bi xamné d'orientation sexuelle buñ ci bolé ñom parce que ñoo ni droit la le droit de disposer de son corps bokk ci droit au changer sexe

préparer xalé yi ñu baña condamner cette société là condamner góor jigéen dama ne lii sëriñ si war nañ koo xam suñu xalifa si roy ma ngi len si wo di len ñaan ni jouer seen jël seen responsabilité euh baxna ñuy wo président di wasu ak ak moom waye wo bi nañ ko wo ci pénc mi dama né ñun modèle bi xam Sénégal yëpp pam koy joy ba tay modèle lu melni ni Abdul Aziz ta Aziz la ki nekkul won di woote téléphone ci souf nekkul won di yónnee émissaire da fay wo presse bi wo askan bi wax bëgg-bëggam wax li mu xalaat loolu ñuy xaar suñu kilifa diine yi nañu wax ci kaw pour ñun ñëpp ñuy xam suñu kilifa yi lan la ñu wax ak naka lañ ko waxee pour ñu mën a taxaw nag xeexal leen ndax ñun ñooy seeni i doom ñun ñooy seen i ndaw ñun ñooy seeni loxo ñooy war a defal li nga xam ne ñoom aujourd'hui ñoom dañuy war a ñaanal rek waaye réew mi sàmm réew mi li taxoon El Hadj Malick nekk fi Sëriñ Touba ñëw fi bàyyi ñas nekk fi ñoom Baye Boukounta ñoom Limamou ñii ñëpp il faut une société de valeur une de principe société bi nga xam ne dañ koo teg ci jàngale yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te gëwma ne jàngale yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngal woo ci mal gouvernance ci sàcc alalu askan wi ci parparloo ci am ñoo fal ak ñenn ñoo fol yi ci foowee alalu mbooloo bu ñëpp bokk ak ci wax di fenn ci penc mi ministre yëpp jamono bii dafa mel ni kàddu amatul Sénégal kilifa bu leng mooy taxaw ci biir mbooloo di wax di fenn askanam ma ne un un gouvernance un gouvernement sérieux ne ment pas son peuple. Un gouvernement sérieux ne méprise pas son peuple. Un gouvernement sérieux doit du respect à son peuple. D'abord, le gouvernement, c'est nous bañ na pouvoir exécutif ils doivent exécuter nos commandements et nos volontés Si nous changer bañ gouvernants être monarques on doit sortir pour leur dire arrête te ci marche de ñu